Eh, salaamaaleykum waaw siyaar magal warmal waaw maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam dina leen xam ne xew-xew la rek xama nga waaw maanaam open press Tapha Tine stadium Iba Mar le 9 décembre waaw ñu koy yëgal soppe yëpp maanaam jeudi alxames 4 heures lay commencé gars yi kon mu ngi noonu 4 heures ci ngoonaa ah, kon leer na waa ñu ngi ciy woo xam nga mëndu làmm xam nga presse bi suñu xam nga suñu mbokki journaliste yëpp ñu ngi leen ci woo xam nga ñëw teew jëmal bés bi di ci woo aussi champion yi nga xam ne ñoo ne ci zone u Médina Fass Gueule Tapée bi xam nga ak ñaacoo koy Rebeuss ñëpp ñu ngi ci woo ñëpp champion yi nga xam ne ñoo ne ci zone boobu xam nga ak champion yëpp ah ñu ngi leen ci invité ah bàyyiwuñu kenn waaw làmb la rek jàmm ak salaam open press la tafaatin moo koy def waa di ci woo kulli kuy bawol bawol ak sama mbokk saalum saalum yi kajoor kajoor yi xam nga njàmbur njàmbur yi ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ak sama mbokku lébu yeeg ñëpp xam nga njaago maninke soose njaago xalpulaar comme ni ma koy waxee ah kon leer na mu ngi noonu maa ngi woo aussi sama frère yi sama mbokki champion yi nga xam ne ñoo nekk bawal bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bés bi xam nga ñu ñëw jëmal bés bi quatre heures lay commencé gars yi kon open press Tapha Tine le 9 décembre à stadium Iba Mar ñu ciy woo champion yëpp mondu làmb bàyyiwuñu kenn waa kon gars yi muy noonu message bi laa noonu naa ko jàllale xam nga ñun ñëpp ñu